bi daayira yi ñu bari ñu ngi doon woote di laaj lu ñuy def li ñu leen xamaloon mooy nañ nu may ba lu weesu ginnaaw la cinq xamagun nu mbir mi tëddee ndax waxtu wu nekk dañ ñuy wax ne ma li tàmbalee waxtu sàngam ba waxtu sàngam nañ ko defee nii ba waxtu sàngam jooju nag bala ñu koy weesuwaat dama daan laajaat ndigal li sëñ Moussa Nawel suñu jëwriñ ma laajal sëñ mën nañ ko defee nii tey nag bi mu jàmpee àgguma ci sëñ Moussa waaye lu ma ci wax ci ndigalam laa koy waxe daayir yi nañuy wëyal siyaar yi ci bis yi ñu ko daan jox muy ajjuma gaaw dibéer alterné am na nuñ ko tërale woon alxames ajjuma dëkk bi gaaw dibéer ñu sori ñi alterné délégation yi kilifa yi alxames Serigne Moussa moo ñaanoon sëñ bi ne nañ ko nañ ko ko booleel ci bis yi muy nekk daaru minam àggalee liggéeyam waaye bis yi muy nekk daaru minam nag tekkiwul ne comme neex fekk ko fa nan koy nan koy fekk fii kër sëñ Tuubaa gii muy liggéey la ma cee dolliwaat mooy waxoon naa ci déclaration bu njëkk baa njëkk nañ sàmmoonteeg waxtu yi siyaare yi waxtu yi mooy ku bëgg a siyaare foo mën a jóge bu la wóoree une du la fekk egsi kër sëñ Tuubaa bàyyi ko ba ëllëg waaye sëñ bi wàcc trois heures nga door a ñëwaat daal bëgg noo sonal ci ne sëñ bi génnaat nun te dun duñ ko ñemee wax sañ bu demee ba amul pexe nu wax ko sëñ bi bu sëñ bi bëggee génnaat di doon fitna ci moom nañ bàyyi loolu man de ku ñëwati ginnaaw quatre man du ma la boo amee keleen ku la yëgal sëñ bi na nga wax ko sëñ bi waaye li ma wax ak sëñ bi léegi moom kenn ku fi ñëwati ginnaaw Kazu Rajab man du ma la yëgal sëñ bi loolu leeral nañ